ñaari mbër yu yaru lañu soxo am bisimilah maa ngi lay nuyu ma xool ndax tax na waaw maa ngi lay ma bàyyi la nga nuyu waa adduna. gars yi salaamaaleykum ah. avant tout dañuy dugal hymne national du Mouride yi rek hymne national Mouride na ko ñëpp teewlu ah Baye Fall hymne national Mouride ah onze bila bisimilah ina wali onze bila bisimilah ina wali yàlla jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gaay ku ne xam na ni Sokh ak Gamou ñaari mbër yu am respect lañ ba combat bi taxawee ba léegi Gamou wonewul wanewul luy coowloo kenn Sokh wonewul luy coowloo kenn ñu ngi daje fu nekk te dañuy joxante cër comprendre barki Serigne Saliou Mbacke ku ci xeex yaa xeexloo sa bopp mais Gamou Gueye xeexloowu la soq xeexloowu la ndax mu ngi nii taxaw du ma saaga du ma ko saaga te li ñu war a waxante dinañ ko waxante lii fair la rek bu leen tax ñu teg sama der wala deru Gamou Gueye lu ñaaw te ndub meluñu noonu ma leen siyaar yéen ñëpp yéen ñu ànd ak Gamou Gueye yëpp ma leen siyaar baax bu signature bi jeexee ñu dox ndànk ànd dem ñibbi le six ñu jëflante man ak Gamou Gueye comprendre nga maa ñëpp di ñu fi teew ñëpp di nuyu suñu papa yi fi toog yëpp di nuyu suma adversaire Gamou Gueye di nuyu waa Pikine gëm a jóge di nuyu suma mbokk jawlaa yi ñoom ni saafen du muyul kala Kabrousse kala ñaal kala Guinée Bissau kala këru xëy ñoom ni saafen du muyul fe di nuyu suma mbokk séeréer yi o fogole séeréer ma xëy sum naanuma paax layaama nuun njoko njal gaa am ndam ndamtaama combat fekke mi fa Gamou Gueye maa ngi nuyu sama mbokk bawol bawol yëpp di nuyu waa Looro di nuyu ñëpp di nuyu àdduna di nuyu waa senegal wasalaam. salaamaaleykum gars yi maa leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax di wax Sokh li mu wax noonu kontaan naa si li mu wax lu jaadu la quoi maa Sokh xeexloo ñu kenn maa moom ñoo war a bëre ñun ñaar ñoo war a ñu kenn ñun ñëpp yar lañ ñu xamee di ñaan yàlla ma yàlla may ndam si kawam si barka Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaanal Papa Yada sama nit la woon sama rakk woon. di nga ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak ñi mu fekk foofu ñëpp. amiin amiin moo xamante ne nii samay combat daf daan sonn dina ma manqué trop mais dañ koy sant yàlla waaw di ñaanal ñëpp ñu mbëri yi génn àdduna yëpp maa leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla xaare àjjana ak ñi ñu fa fekk ñëpp. ay ñaar daaw ngeen waroon bëree ñu ñëw bañ ne suba la combat bi dogal bi wàcc boobu ak léegi wàccaay gi métti na de sox. waaw moom moo tax ñii war ñoo yërëm quoi. loolu rek dafa war a tax ngir yërëm ñu mën a Gamou ndax ñaari xale yu toog ñaari at yaakaar lamb bu bëriwuñ dafa métti comprendre nga di ñaan rek yàlla na jàmm xew ba le six ci kàttanu yàlla ma daan Gamou Gueye di ñaanal Papa yàdd di ko ko jaale moom Gamou Gueye di jaale Zilbal de Junior di ko jaale waa Pikine yëpp di ñaanal suma grand frère Ousmane Tine caabi da ko féete ginnaaw suñu borom delloo si waat di ko ñaanal suma rakk bébé Diène suñu borom delloo si ko di ko ñaanal képp ku caabi féete ginnaaw ñoom Seex Xuma ñoom Petit comprendre nga maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci daraja Seydina Muhammad waaw miti woon na trop mais dañ koy sant yàlla jaamaa pexeem yàlla dogalam waaw promoteur bi tamit ñu kay koy ñaanal yàlla tamit moom borom baax la coono bi lu ñëpp a ko bokk ak mbër yu ndaw yi ñu ay mbër yu ndaw lan sax mais lu ñëpp a ko bokk ñun mbër yi ñu ñu waroon a bëre la quinze xam nga mais jaamaa pexe yàlla dogalam ñu di ko sant yàlla bu baax waaw yéen ñaar ñëpp seetaan nañu seen combat yu mujj waaye bu leen xoolaatee tolluwaay changement am na soq foo waajalee combat bi ak préparation bi naka la demee. waaw man ku ne xam na ni sama États-Unis laa jógee Gambie di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaanal suma papa Jine Mori Pierre Boy Mela Kunta Junior suma xarit ak Garga Kalso suma doomu nday nga xam ne bàyyiwuma benn yoon comprendre nga di ñaanal suma coach ala di ñaanal ñoom Malick ñoom Julde ñëpp. comprendre la combat bi xam na ne ñaari at lañ ko préparé Gamou Gueye su parewul daa yeb waa Tëngéej man suma ma parewul damaa yeb waa Pikine te benn Modou ñun suñu combat bi mu yàqoo amateur yëpp ko ñaxtu jooy ko ni mënoon nañ ñoo bàyyi ñu bëre parce que tolluwaayu Gamou Gueye ak la ñaari xale yoo loo xam duñ négocier bis kon ñun duñu rusloo amateur yi bis boobu ñëwee Gamou Gueye ku ne xam na ni Gamou Gueye du dellu ginnaaw mbër mu ñeme la day attaqué day xeex waaye Sokh ku ne xam na ni Pikine la dëkk te xale la ma am fu ma war a jëm nag soxla bis bi ci lu wér. man nii laa mel de man nii laa am nii toll waaw nii laa mel maa ngi dëngéej Rio waaw ñun Rio lañ am mooy suñu États-Unis instant bi nii bëgg nañ dem nag mais mënagu ñëw dem instant bi ñëw Rio waaw di waajal combat bu baax waaw ñu ngi si kawam daal di ñaan yàlla yàlla may ndam. léegi ñu dugg ci biir combat bi arbitre bi bu sifflé nan demee da nga daan ñëw. dañuy daje ndax xam naa ne waa ji day ñëw. jàmbaar la. lu mu laaj rek. juru làmba ji lu mu laaj rek incha moom la def. non lu mu laaj gaynde lu mu laaj ay naxante la. arbitre musta sifflé te doxoo sa paa te soq deful ñu ñëw. nañ daje rek jëflante mu jeex ñu ñibbi. mbër làmb <laughs> la daal. laaj rek incha eh, yaram. ñii ngay jéem a lëre. mais man soo xam naa ne Gamou Gueye bu arbitre sifflé day teg paa ñëw mais yow xamal ne bu arbitre sifflé soo ko day teg paa ñëw jëflante. Ah, awoon dinaa xaar dinaa ñu ñu tuddee combat bi El Hadj Keita seen frère seen moroom liggéeyam moo ko liggéey moo ko waral soq looy wax ci El ak xale yi mel ni moom ñu ne ci réew waaw boole si Assane Bongo. parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ gis nga ñuy taxaw pa taxaw fi Elaj Keita combat yi jàppa si mbëri ndaw yee ñun ñu ko am loo ñu jox ñu jënd ay bee jarul ñu jubal ci gise boo ñuy jaay nga jaay ñu boo may nga may ko waaw a jàppa ñun ñëpp nga may ñu nekk da ngay may ñetti nga may wala ñaar mu mbër yëpp Modou bés bi sa bés la. Modou waaw El Hadj Keita ku ne xam ne ni daanaan la moo mujjee ñëw ci génération ñu naan ko la Neymar kon loolu du ay caaxaan fii waxal nit lu mu deful ci naafeq la bokk mais ñu li ñuy wax nii ku ne xam ne ni El Hadj Keita dafa mën a way dëgg yàlla na ko yàlla lafal cat li gàmmu gay wax dëgg la combat bi ñaari at lañ ko préparé te gisuñu dara te terewul ñu ngi sàmm suñu ngor promoteur bi ñu xam nañ ni demee ci côté woowu moo ko sanjaxal ko ni ko lii wala lële ba jàppee le six dama ni ko jërëjëf ak lu mën a xew buñ ma joxul cent franc dinaa bëri te ba tey ba sànq joxuñu ma cent franc mais dinaa bëri ndax ku wéet xam sa bopp te ñun xam nañ ne ndaw la da cee nekk nii rek di jaayante ba tey amagu ci lu extraordinaire kon dañ koy ñaanal yàlla suñu boroom kàttanal ko ci daraja yonent bi mais pour l'instant ku nekk jëndal naa la ñaari bolok ku nekk jërëjëf waay El Hadj Gaye jërëjëf jërëjëf waaw Modou Mbaye damay sant samay entraîneur problème saa maa moom ñoo far damay sant samay entraîneur ku ma nii Papa Yada non rusante wu ñaa ñoom nii lañ mel man boog nii laa mel ko maa ngi oo Papa gërëm bu baax di sant Papa Forman di fi gërëm laay boxeur ak comprendre nga ah Idi ah Babou Kalle Papa Lamine maa ngi koy ñaanal yàlla nga yàlla saafara bu baax comprendre nga di sant ñëpp di oo waa ñu ñëw jàpp si combat bi di oo waa production bi waaw ñu jàpp si combat bi di oo waa Tëngéej fukki ñu oo ñoom ñëpp si combat bi di oo waa ñu jàpp si combat bi waaw Aline Mar Aline Mar ma di ko oo maître Alioune Mar ñu ñëw jàpp si combat bi maître Bamar ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi Libaas maa ngi koy sant bu baax Idda ñoom ñëpp waaw. beneen bi damay ñaanal Jibi Ama. ah éleveur yi. waaw Jibi Ama dama koy ñaanal wér gu yaram ak tawféex Jibi Ama ba ba ba une heure du matin message di ma ñaax ci combat bi te dafa tëdd yàlla na ko yàlla yëg fëgg boppam. amiin amiin ci ay yitteem comprendre beneen bi. di ñaanal waa Pikine jël championnat bi di ko ñaanal président. non championnat bi waa Tëngéej a jël de benn point ngeen roye da leen di dóor. kii maag moom suñu guerre dafa bari fi mu nekk daa bari mais garaawul di ñaanal waa Pikine yàlla may leen ñu jël championnat bi di ko ñaanal président bi di ko ñaanal borom Batora di ko ñaanal yokkute ak wér gu yaram ak tawfeex comprendre nga ñaanal suma entraîneur moo. maa ngi koy ñaanal baax di ñaanal waa xam sa cosaan bëri fa am combat yëpp suñu borom defal leen ndam di ñaanal président bi Malick Ngingue comprendre di ñaanal suma gaañ suma xarit suma frère Malick bu combat bi taxawee ba léegi nelawul gëmmul centimètre moog Vito ak ñoom Moussa Ndiaye suma mafia bi yëpp ñoom moo Talla S Ibrahima Diallo borom dëkk bi comprendre maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di woo Mortala du ñu ngaaxa di woo Abdou Karim Sall di woo Amadou Sall comprendre di woo Rama Magi di woo monsieur le maire Isaka Diop di woo maire Mbaaw maa koy woo ci combat bu baax di ñaan Modou yàlla na Sénégal yàlla jàmm yàgg Sénégal ci daraja yonent bi di ñaanal di ko ñaanal yàlla indi ko ci bis bi la siis ma jàpp ko daan ko ci sama ah. waaw di oo tamit Souleymane Ndoye Souleymane Ndoye maa ngi koy oo di oo Mame Balla di oo Daouda Niang papa Daouda Niang di sant sama nijaay Habib Seydina aw ma fayam waaw maa koy sant bu baax di sant ñëpp bàyyiwuma kenn. beneen bi ah Modou maa ngi maa ngi woo Saloum saalum yëpp di woo waa Kaolack di woo waa Kër Baye Niass maa ngi leen di woo ci combat bi baax di sàkku ci yéen ñaan di woo waa Ahlu Bayti Rasul bi yëpp waaw di woo waa Casamance di woo sama mbokk séeréer yëpp waa Fimela maa ngi leen di woo waa Diofior di woo ñëpp waa Caajaay waa Njoos moom ñëpp maa leen di woo. di wax Pape nga ñëw jàpp si combat bi bu baax Pape Malick Menga ñëw leen jàpp si combat bi Papa Paala Paye ñëwal jàpp si combat bi ñëwaat si làmba ji jàppale mbëri Tëngéej. mbokk rendez-vous bi le juin la incha allah ci arène national Sokhu Gamou Gueye drapeau El Hadj Keita Mbagnick Jacob Balde drapeau Assane Bongo ca Pël bu Daaru Mamor drapeau Ousou Boy mbokk yi kontaanee nañ leen di leen jaajëfal le 13 juin Gibson mooy ñëw ci arène national Buldozer Gin bu Yoff Baba Diaw gërëm na ñëpp jërë ngeen jëf di sant journaliste yi di sant ñëpp